ñu ñëwoon doon ko siyaare muy kenn ci seti Serigne Touba yi nga xam ne mi ngi liggéeyal maamam ci tool bi ci diina ji di ko tasaare waaye di xamle sëriñ bi bu baax baax ñu miin ko ñu bari xam ko di diglu ay kàddoom luy jëmee ci yoon wi kanam ci anam yoo xam ne la cay dëgg rek la cay wax ñu ñëw woon tey seet si ko euh, siyaare si ko di ko leeral liggéey bi nga xam ne gannaaw biñ ci amee ndigalul sëñ mu Mountakha mi fi nekkal Seexul Xadiim di ñaan yàlla mu yàggal ko fi loolu te wéral ko muy liggéeyu karawaan Mayumba maanaam muy mbooloo moo xam ne dañoo jóg di saytu jaar-jaari sëñ tuba ci Gabon rawatina ci barab boobu muy Mayumba muy barab boo xam ne am na fa ay at yu bari lu ma juróomi at moo xal ko boppam <clears throat> muy barab bu tumranke boo xam ne moom ci boppam wax na ne fekku fa kuy wut yàlla ak koy sàkku mboolem luy ab coona ak luy tumranke ak luy mettiteeg barab booba dañ ko fa ma daj lu ko ëpp barab boobu nag lañ ñu fas yéene Serigne Mahamadou Fadal Bousso mi nga xam ne yàlla dogaloon na ma xalaat bii yàlla tawféexal ko mu xalaat ko façon yéene ne dinaa fondement Serigne Touba loo xam ne ëllëg sibir biir lu ñu bëgg liggéeyal Serigne Touba teg ko ca kawam mu ànd koog ak mbokki taalib yi nga xam ne ñeen ñi teew nañ ñenn ñi xëy na nekkuñ fi ngir ña ca bitim réew waaye amoon na yéen ñoom ñëpp bokk teew ñuy ay nit ñoo xam ne ñu amoon pasteef lañ ci liggéey bi Serigne Touba ñor leen. ñu ànd ko ak moom sëriñ bi nag yàlla defaloon mu wutaloon ko benn ONC boo xam ne état bu Gabon bi nanguloon na ko ko bari si bi kenn mu nekk liggéey boo xam ne fu waay mën di nekk ci àdduna bi soo bëggee ñëw biir Gabon bëgg a wisit jaajaay seen tubaay rawat na Mayomba ci kër yooyu ci nga mën a sukkandiku ñëw biir Gabon taxawal def sa ziyaara def li nga bëgg def lépp ci turu ONC boobu ba ñëwaat sama réew te du am benn jafe-jafe mu liggéey boo xam ne euh, moom rek lañu fas yéene ñu nit ànd ak ñoom ni ko àndee woon ñu bokk jëmale kanam liggéey boobee ba foofu nag ñu fay dem euh, waxtu wu nekk chaque année bu demee ca barab ba Serigne Touba sampoon bantam ya di fa jaamu yàlla ñu koy sempi ak di ko bu ndoxataal fa la am ñaari fan dafa jàng alxuraan dafa jàng xasida waaye dafa waxtaane sëriñ bi moo mel na nag am na beneen projet bu ci dolliku mooy ñu fas fa yéene amal jumaa joo xam ne jumaay Sëriñ Tuubaa lay doon ju mag ngir bantam yooyu ñu xam ne yàlla suñu borom subhaana wa taala fay na ko lu lu ko lu ko sut lu ko ëpp waaye daara alxuraan joo xam ne dañ fa jàngale ci alxuraan ak xam ne fa sëriñ bi loolu mooy euh, projet yooyu yooyu nga xam ne moo leen fas yéene amal foofu ñëw nag doon ko leeral sëriñ bi di sàkku ci moom ñaan waaye ak kàddu soññi yoo xam ne mbooleem euh, mbokki taalibe bi dañ ci mën a jariñu sëñ Cheikh Naar bu sa yaa ngi lay ñu ngi lay nuyu yàgg sa doom ji nga àndal sëñ Cheikh Naar so Bousso di am mbégte ci seen tànk yi nag ak liggéey bu réy bi nga xam ni dañ koy defal sëñ Tuubaa foofee ca ma ca ca Libreville Mayumba Mayumba te boole ñu muy barab boo xam ni sëñ bi buñ ko exilé foofu la nekkoon dafa jaamu yàlla wéetoon fa lool ku ne xam na ne bi dem mu ngi wax xusuur yi xalat wala ahlu an tafaraxat li mat la si anxamad yi xasiw nekk foofa ay at di fa jaamu yàlla di fa liggéeyal boromam natt bu ne fekk ko fa fitna ju ne fekk fa coono bu ne fekk fa waaye mu muñ ko ngir jëmi suñu borom boo waree na fa daawut am lu muy dogoo jàkka ji mu fa masaa taxawal nga xam ne day samp ay bant ñu koy daane ba sun borom fay ko jumaay Tuubaa ji ak ju njaareem ji yu ñëpp teg seen bët ba mu koy wax yàgg na waaye ñu tabax ko ba mu sotti kon nag bu lii sottee day mel ni fañ fañ fañ ko fa mu ñaane woon loolu ak fañ ko may woon loolu war nañ koo tabax mu sotti te foofa day farata ndax ña fa nekk am na ñoo xam ne duñu ay jullit bari na fa kon nag def fa kër sëñ Tuubaa def fa jumaa def fa jànguwaay day farata ndax sëñ Tuubaa moo defal sama sa sama ne yëpp mu ay jàkk sama kër yëpp muy jàkk sëñ Fallu sëñ Fallu bu sa nekkoon jàmbaar nekkoon fa dafa liggéey sëñ Tuubaa di mbokk ba jóge fi doomam ne fi yëfee tege ci loxoom mu war koo dundal kon ku dib taalibe ku dib jullit ñu ngi la cay woo nga jàpp ci te xam ni loolu moom bëri ko ci mbartal dong la ndax sëñ Tuubaa la koy defal defalu ko boppam defalu ko baayam sëñ Tuubaa la koy defal kon nag képp ku yaakaar sëñ Tuubaa tey doxe Pastef ñu ngi la ciy woo nga def ci saw ñaq te xam ne boo ko defee doo ko rëccu moom mi nag am na ndigal ci ki fi nekkal sëñ Tuubaa mooy sëñ Muntaxa buntu ko sëñ Tuubaa itam dem na fa yëgal leen ko gannaaw def na li war a def nag moom li des nun tali bi ñoo ko war a def ndax ku liggéey sëñ Tuubaa tali bi la war a fay te sëñ Tuubaa dafa liggéeyal boroomam ba boroomam fayal ko mu bëgg noo dimbali nag ci ñu lëggeel ko ndax lëggeel sëñ Tuubaa rek mooy la am njëriñ ñi fi jëriñu ñëpp ci lëggeel lañ koy doon xet ma la gisal xob ba teg ki xajee doog kee tege kon nag ñu jéem matal ñett yëpp liñ liggéey moom ko nañ ci génne def ko ci jumaay sëñ Tuubaa ji def ko ci kër sëñ Tuubaa def ko ci liggéey sëñ Tuubaa bi jumaa néegu yàlla la ku tabaxal sun borom ab néeg mu tabaxal la njëdd ci àjjana kon loolu kuñ ca wook dañ laa bëgg a dimbali te dañ ne ku ñaan ñàkk soo jëndee am te fee nag ab jëndukaay la ndax sëñ Tuubaa fa nekkoon di liggéeyal boroom sonn fa daj fa lu ne kon nun bu ñu demee ba ay ay ay xéewal yi demee nii ñu yàlla ñu ci réew ma nii loolu ñaan ak sëñ Tuubaa ña fa nekk di taalibe sëñ Tuubaa war nañ koo delloo njukkal buñ par parloo buñ def lan lañ xam ne sëñ Tuubaa moom lii hmm? ñu ànd liggéey sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa yi fay kenn leen mën ta fay ku sëñ Tuubaa waaw kon nag ñëpp ànd doon benn liggéey sëñ Tuubaa ndax doon benn rek la sëñ Tuubaa bëgg ñun xalifa bu fi nekk tam day la ko taalibe mu doon benn rek moo tax wute mënta ñàkk waaye nag nañ xam ni dëgg ko njub la leen sëñ bi woo liggéey sëñ Tuubaa la leen bi woo kon nag ku ne war na ko cee wusi ña fa nekk tey mag ñoo ko waroon a jëkke waaye moom mii ndaw nag te def ko kon yàlla ko yàlla defal ak ak bëggam ak képp ko ci jàppale ak képp ko yéene gannaaw nag foofa ay ña fa nekk dégguñu sax wolof te yonte bi daan buñ demee ba jamono jullit piir du dégg arab te ku xam na ni fi mu toll nii Sénégal kenn gën leen di jullit ci ci kaw suuf ndax Màkka sax ëpp ñu ëpp ñu diine kon xam naa lu dal yonent bi day dal sëñ Tuubaa dañuy dem ba murit piir dégg wolof te gabon googee <clears throat> ay murit piir nga fa kon nag ña fay gabone te fa tey seen warsëg nañ ko ci def te ne sëñ Tuubaa rek lañ fay rawat ñi nga xam ne dañuy ay sénégalais ne fa du yëfi murit rek yëfi diine islam la kon ku di murit ku di xaadir ñaq te ci réew ma te ànd doon benn te xam ne ñoom ñëpp julli bu noppee ñoom ñëpp la fa seen njaboot di jàng su noppee lii dafa jaaj sëñ Cheikhouna mi rek agsi sëñ Fallou njàmbaar gu ne taxawoon na ko te taxawul lii kon day sëb cër yàlla na àgg ci say loxo te nga day ci ngërëmu sëñ Tuubaa ak ñu ngi ko bokkal ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu وسالك نار الخلد li barma yumba